ci tënk chiffres yi ngeen siiwal fan ngeen natt tolluwaayu ndóol mi ndax dafa yokku ndax dafa wàññeeku fu am amu waa Sénégal tollu ci tënk. waaw jërëjëf xam nga da ne li ngeen siiwal dama war a leeral ne man ci biir gouvernement bi laa nekk. waaw mooy bureau bi ma yor. bureau bi nu mu tudd. bureau de prospective économique. ñi ngi ko logé général gouvernement. bon ci premier ministre la nekkoon. waaw. Euh, mais ANSD mooy ki nga xam ne mooy saytu euh, statistique. waaw euh, moom bokkul ci gouvernement bi. xam nga ñu bari ñu ngi foog ne mu ngi nekk ci ministre de l'économie mais ministre de l'économie mënul wax ANSD lu muy def. Hmm. ndax loolu dafa am ay lois yu nekk au niveau international ay chartes ay principes. Hmm. Euh, quand je dis entre guillemets. Mhm. Euh, yoo xam ne ñëpp dañ koy respecter mhm. mooy li ñuy wax l'indépendance scientifique. Mhm. mooy ANSD dañ koy bàyyi rek mu liggéey. su paree génnee ne lii la mais euh, dëkk boo dem ba nga xam ne institut statistique dañ koy wax su su bindee ba pare ñu corriger lim def. kenn dootu wóolu. li muy génne. mooy gis nga li xew tey ci. Euh, banque mondiale ak doing business mm-hmm. ay données yoo xam ne dañ ko corriger moo tax lu jëm ci statistique lu sacré la mm-hmm. euh, par exemple euh, man mii par exemple il m'arrive ma dafay enquête mm-hmm. am équipe yi ma yónni ci terrain bi mais lu génn ci enquête bi duma ko laal man naa commenter nag mais li ñuy wax les faits sont sacrés ANSD loolu la donc daf na liggéeyam ca liggéeyam tamit ci moom rigueur bu rëy la koy def. Mhm. Euh, li mu génnee dafa génnee ne fiñ ñu toll nii su fekkoon ne da nga utiliser méthode nationale. Mhm. ñetti nit yoo jël kenn ki dafa ndóol. ci mhm. biir Sénégal fi ñu toll nii. su fekkee da nga jël méthode boo xam ne da ngay boole Sénégal ak yeneen dëkk Afrique sowu jant. Euh, téeméeri nit yoo jël. daanaka fanweer ak juróom-ñett yi dañu ndóol euh, waaye nag loolu mën nañu wax ne soo ko comparé ak euh, juróom-ñaari at ci gannaaw mm-hmm. parce que enquête bi ñu ngi ko defoon 2018 mais soo jëlee 2011 matoon na daanaka 47 pour cent mm-hmm. donc jóge ne 47 pour cent 46 virgule 8 mm-hmm. ñëw 37 virgule 8 donc wàññeeku na 9 poñ juróom-ñeenti poñ bon enquête bi nag moom juróom la wax xëy na am na technique bu ñu utiliser. Mm. ba wax juróom waaye su fekkee da nga xool résultat ñaari enquêtes yi 9 points la. Mm. ñu ngi woon 47 46 virgule huit ñu ñëw 37 euh, virgule 8. mais man ci li ma lire en valeur relative euh, bu ñu ko waxee. Euh, mm-hmm. mais valeur yi dafa yokk ci lii mu nit ñi. waaw xam nga nangam sangam la woon jàpp ma exact léegi ñu ngi ci 6 millions nangam. xam nga soo jëlee Sénégal. Mm-hmm. mille neuf cent deux mille deux mm-hmm. ñi ngi amoon cinquante quatre pour cent pauvres mm-hmm. doon taux bi nga xam ne moom lañ publié woon deux mille mm-hmm. soo jëlee nombre pauvres yi amoon nga comparé leen ak nombre pauvres léegi <coughs> lim yokk ëpp na ëpp deux millions soo ma nee wax wala wala ëpp na un million en lu tax parce que nit ñi ñoo yokk euh, c'est-à-dire euh, li am solo ci statistique mooy pourcentage mu ëpp doole valeur absolue mm. ndax xam nga soo ne deux cent mille soo ne ma woon Chine Chine ñaata la un milliard sept cent mm. nga ne ma yokk na par exemple dix millions mais dix millions boobu su yokkoo ci dëkk boo xam ne bariwul nit loolu lu garaaw la mais fu mel ni Chine dix millions du fa dara donc li am solo mooy euh, nañu wàññi li nga tuddee valeur relative mooy wax nañ léegi ñetti nit yoo jël mm-hmm. euh, ñaar ñi ndoolu ñu kenn ki moo ndool mm-hmm. nañ fexe ba suñ demee ba ci kanam mm-hmm. euh, juróom yoo jël xëy na kenn rek mooy ndool loolu soo ko defee xamal ne dëkk baa ngi jëm kanam suñ demee ba ci kanam nag ba nga xam ne wàññee nañ ko ba mu ba mu ba tuuti foofa la ñuy xool léegi ñaata nit euh, parce que danañ toll niveau boo xam ne même croissance démographique bi dafay wàññeeku parce que Sénégal soo xoolee at yi ci gannaaw ni population bi di yokkoo sax dafa dafa dafa yokk. dafa yokk dafa gën a gaaw. Ah, dafa gën a gaaw dinañ ci gën a. donc yooyu yëpp ay éléments la yoo xam ne il faut nga tenir ci compte. Xadim euh, yow dam lay laaj déjà kan mooy kundóol ku ñu mën a jàpp